مولده معسم مبارك محترم تعصيمه bayit yi sëriñ bi da ciy wax wàccuwaayu gàmm ak njëriñ li nga xam ne dundal gàmm am na ko mu wax ne mawliduhu muasamu mubarakum muhtaramu taasimuhu yanatimu ala sawi taqaddumi bisub gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu màggal la fa suñ borom lu bari barke la te lu ñu warmaal la kon nag di ko màggal ci anam giñ ko war a màggale lu war la ci mboolem kilifa diine yépp ngeen njaboot yi man di leen ci roy taxsimu bi sunnati yaquutuna lil jannati bi isdiyaatul minnati li muxlisin muasimi màggal gane àdduna yonent bi ci anam giñ ko war a defee bokku na ci limuy muy jëriñ mooy dañuy wamat ba tabbañu aljanna te it kep ku koy def te diko selal dina ko yokki xewal ci zahir ak ci baatin فمن يعص مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب قدا فطرما وعظمين. بوكوي ماغال غاني ادونا يونتبي صلى الله عليه وسلم alayhi wa sallam na kenn du ko xisaab maanaam ay jëfam kenn du ko nat waaye buy dem rek di tabbi aljanna kon yow julit bi na nga koy màggal te di ko warmaal فمن يعص مولدا خير البرايا أحمدا فكالشعيد شعيدا بدرا بخير وحميد كيف كوي ماغال غاني ادنا يونت بي صلى الله عليه وسلم bu ëllëgee yowmal xiyaam dana mel ne ku xeexoon badar ci ay daraja fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharafi maalan bi xayri sharafi walaw bi qadri dirami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar ويوم بدر ونسر خير الورى المطامين képp koo xam ne jël na alalam def ko ci gàmmu ngir màggal bis bi te yàqul nag ci alal ja alal ja lum néew néewit donte benn dërëm la na xam ne bu yéen a ja sellee bu ëllëgee lam koy jural mooy dana mel ne ku fekk woon xareb xunayn muñ ca tartar ya fekk xareb badar ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir taxawal diine. نبينا بابل ودا فلا يهاسب خضاع عند الإساب المفحمي كيف كو خمنا يعني مقل غني أدنى جرنتبي صلى الله عليه وسلم نغا خامني بو ألغي يوم الخيام كين دولا حساب مانام سي جيف ديسو كو نات واي بوي ديم ريك دي تابي الجنه بيس بو غا خامني تارتاريا دنا ميت تي دانا تيس فكل من خد حتى مولد أفضل الورى معسما مبصرا بشكر أو لحم فإنه خد سفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماعه الأمم mu wax ne képp koo xam ne it teewee na bisub gàmmu màggal ko dem ca mbooloo ma fañ koy màggale mu bëggal leen ci aw ñam moo xam ñam wu saf suukar la wala ñam wu saf xorom te yéen a ja sell na xam ne loola day dana ca jële mbég mu sax dàq te it suñ borom dana ko musal ci ay lor ak i bu ëllëgee yomal xiyaam bis bi nga xam ne ci lay dajale mboolem xeet yépp mu wax ne فمن تعامل سيئا لمن له قد قرا مبجلا فقد بأى خيرات أهل العلم képp ku waajal aw ñam yóbbu ko ca fa mbooloo ma di dajee di fa màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa na nga xam ne day loola jële nga ca yiw woo xam ne yiw la woo xam ne du jeex mukk te it foo ko natt rek weesu na ko مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سوي التقدم